mbokk yi dal ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi bàyyi xel jant bi TV tey ji ñu dikk ak yéen ci waxtaan wu am solo euh, jëmoon ci wàllu association yi nga xam ne ñi ngi yëngu fii ci biir Touba te di fi amal liggéey yu am solo waaye jam rawatina jamonoy màggal gi. association bi ñu dalal tey nag mi ngi tudd association wàllu ak yeete muy tur woo xam ne li mu bari na lool.

leneen la ca topp tamit nga wax ñu association bi maanaam existence am nu mu demee ci wàllu récépissé beeg yu demee noonu daal incha allah sëñ Baye bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñiy teewlu jant bi yëpp ñent bi TV eh, di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ak sutura di ñaan ñu fekkee màggal geeg jàmm waaye lépp luñ ci jëf rek yàlla ne ko sëriñ bi nangu. sëñ Kébé ngir tontu sa laaj bi directement rek association bi moom li muy wundu ak lu ko tax a jóg mooy tur bi tudd rek. mooy wallu ak yeete képp koo xam ne daal euh, am nga loo néew doole boo yuuxoo jubale fi sa gémmiñ ko association bi yéegee rek dana taxaw wallu la ci sa kem kemtalaayal kàttan waaye képp koo xam ne am na loo réere tamit euh, boo ñëwee ci association bi danañ ci taxaw suñ kemtalaayal kàttan jëm la caa gindi buñ ko xamee buñ ko xamul ñu xool kuñ ci ëpp xam-xam ngir mu gindi la ca loolu mooy jubluwaayu association bi association bi nag ñu ngi ko créé woon le 28 décembre 2013 ci lañ ko taxawaloon biñ demee ba 2014 ci lañ am récépissé boo xam ne mooy wane ne état reconnaître na ko euh, ngir ñu mën a wéyal sunu liggéey ci dëkk bi. waaye li nga xam ne nag moom lay taxawee ak moom lay doxit bari na lool comme niñ ko waxee rek euh, waaye tamit lépp loo xam ne bëgg ko sëriñ bi la ci dëkk bi dinañ ci dox. lépp loo xam ne lu sëriñ bi bañ ci dëkk bi la tamit dinañ ci dox waye lum ci meuna a doon it buñ àggee ci war ko jotal ci kilifa ga nga xam mom la sëriñ bi denk lola ñu diso ci ak mom jafe-jafe yi nga xam day am ci biir kër famille yi tamit dinañ ci dox ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi ngir ñuy tay moy to ñaaw euh, dinañ ñi jàppale mboolem ñi nga xam ñi ngi am jafe-jafe ci barab yi public yi euh, yu melni hôpital gendarmerie police wala léeg-léeg lu meuna doon rek ci jafe-jafe ba tribunal di len accompagner ngir kuñ ci nara xal xalañ sa àq ak sa yelleef ñu fexé bañ délo lako ko loolu nag poussé woon ñuy dox ci yu bari mm-hmm. alerte bobu ndax xam ngeen ne Touba fi ni ne nii mm-hmm. euh, seetlu nañ ne ci walu alimentation dafa am jafé jafé deug deug deug deug jafé jafé bi nak ñun duñu yem ci wax ko waaye dañ jëm suñu suñ kéemtalaayal kattan moy insécurité alimentaire ndax euh, xéti produit yi fi dugg léeg-léeg ak xéti li ñuy jëfëndiko xayna na léeg tay ñenat yi nga xam ne ben yi nga xam ay wutkati kom lañ mm-hmm. euh, dañuy def luñ am mu primé wala mu am ayib dañuy xool nuñ fexee ba mu dugg Touba rek ndax bu duggee Touba léeg-léeg lenn ci ndaw ko ndaay ñi sant Kébé moom na gën a yomb rek bu ko defee nag yooyu day seet nañ ne day jur ay jàngoro yu bari loolu ñu ngi ciy liggéey di ci arrêté alerte mm-hmm. produit bu njëg ni mi ngi fii bëgg a dugg ñu fexe ñoo ko war a yëg yëg ko bu dee bu dugg ba noppet buñ ko xamee danañ fexe kilifa yi nga xam ne ñoo ko war a yëgit yëg ko mm-hmm. loolu bokk na ci li ñuy dox loolu nag sababoon na ay jamono 2018 ñu xalaatoon ne. Mhm. Euh, Touba gis nañ ne manqué na wala amul benn corbillard boo xam ne mi ngi Touba. Mhm. dañ seetlu ne dëkk bi nga xam ne mooy Sénégal. ville boo gën a néew fi ne am na corbillard. dañ gis ne sunu kilifa yi nga xam ne dañ fi bàyyi ko. Mhm. même ba ci xalifa yi ci ay pick-up lañ leen di teg. te loolu wax dëgg yàlla mu metti woon ñu lool. waaye tamit euh, xam nga pick boo xam ne daanaka buntu ba nu mën a tëjee genn wàllu cër yi day ni ci biti. Euh, te te ñu gis ne loolu daal lu mën a ñàkk la. waye tamit danañ jël auto bo xamne dañ ko xaro won wajale ko muy def luñuy lek mo xam auto bu yab ndox la wala luñuy nan naan moo xam oto mburu la te gis ngeen ak doom adam ni ko sun borom bindee bu fi bayiko ci surtout bes bes bi ak ya cey xew te leg leg da ngay gis nit ñi mom lu mel non bu amé nuñuy def rek bam genn kër gi kon auto bu len gëna jégé rek jumtu kay bu len gëna jégé la particulier la auto mburu la fëgg ko mu ñëw jël way dawlu bi ak nam na ko suñu borom jële yëpp mm-hmm. dem wàcce continuer dem sëriñ ji mburu duñ raxas duñ defecte te xeeti tawat yi bari biñ gisee loolu gis nañ ne loolu moom lu daans la te gis nañ ay ayib yu bari yu muy def ci askan wi mm-hmm. ci lañ seeti woon nag kilifa gi fi nekkaloon réew mi muy préfet ba fa ne newoon jamono jooju muy 2018 mm-hmm. sàkku ci moom mu jël arrêté ngir tere oto yi nga xam ne dañuy jëfandikoo lu ñuy lekk buñ laalati way dawlu la ñu nag ah Touba nag gis naa ne amut corbia amul mm-hmm. benn oto bu ñu waajal ngir loolu mm-hmm. kon du ci mën a jël arrêté mm-hmm. loolaa ñu poussé woon nag ñu daal di ci waxtaan ak kilifa gi sàkku ci ndigal sëñ Murtal sëñ Muntaxa na ko suñu borom gën a dëgëral mu joxoon ñu ci woon nañ ko jamono jooja mu xaw a dëgër 2018 waaye 2020 yëkkatiwaat nañ ko suñu borom dajale ñoo seex euh, ku ñu wax seex Basiru Diop tam nekk fële ca itali euh, ca Sénat waaye ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñu la seqal diaspora bi biñ ko àndee nag 2020 suñu borom defal nañ ci tawfeex ba am nañ ci ñaar nañ ko waxoon sëriñ bi euh, ne ko danañ ko indi teg sa loxo ñu indi ko teg ko ci loxo moom mu xool nu mu bëgg nu mu doxee ca la tegoon i kàddoot xam ne kon nag penc mu ne war naa am bi ñu defee suñuy étude ñu gis ne kon Touba lu mu néew néew war naa mën a am fukk hmm. ñu doxaat jëm ca di ko soññeewaat yàlla dogalaat na it suñu borom euh, wërsëgalaat nañu beneen hmm. Touba ci kanam bi ñu leen bindee lettre laaj leen ko jox nañ ñu benn bi ñu jox nag fi mu ne ak maanaam juróom-ñett yi ñuy wutaat hmm. am nañ benn mu des juróom-ñaar yooyu moom ñun association bi moo ko seereel boppam ndax Touba dafa bari ay way néew doole euh, maanaam euh, léeg lekk sëñ bi nga gis fii ku wàcc ñu indi ko fii ci barab yi di ko waaj yóbbu këram gu mujj mhm. maanaam xeeti càngaay yaag ya cay aju nga xam ne sax dañ koy war a waajal mhm. lenn ci bokk yi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne da leen di jafe ba daanaka mën naa ne dañ koy màjjaal nga xam ne dal toppiwuñ ci kenn aw sas képp ku ko soxla daal mhm. boo wootee danañ la koy jox oto bi nga jëfandikoo ko ba teddal ki nga xam ne moom moo war a euh, dellu ci boromam. waaye boo amee joxe boo amuti tëbbuñ ci sas lu ci waaye joxe nag danañ ko jël ngir entretien beeg safoor bi ñuy fay ak ngir paan yaag yooyu yëpp. Euh, léegi nag bi ñu liggéeyee ci lu mel noonu ngir continuer rek euh, jëkkanteeg waxtu wi. màggal gi bi mu jubsee muy màggal 2014 dañ ne woon nañ bàyyi ba màggal jàll bokk yi ne ah màggal gi ku ci feeñ du bokk ak ki ci feeñut hmm. te ku ci raw raw ci ba faaw ci lañ nee nag kon nañ jege ji kilifa yi ñu dem ci Cheikh Bass Abdou Khadir ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaan suñ borom gën koo dëgëral ak sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma xamal leen ne dañun dañoo am lu ñu bëggoon a taxawee ci màggal gi hmm. mooy gis nañ ne nit ñaa ngi réer bagage yaa ngi réer hmm. waaye gisaguñ commission bu taxaw ngir taxawee ko ñu doon sàkku nag bu ñu ci amee ndigal ñu bàyyi ci suñu waar te siiwal xibaar bi ba ñëpp jàpp ci kenn ku nekk fexe ba koñam kenn du fa réer léegi ñu jox ñu ci ndigal ñu commencé ko nag 2014 léegi nag di gindi def ay baas ci dëkk bi di gindi nit ñi nga xam ne dañoo réer waaye bagage yi nga yi réer ñu di ko for ñi ñiy déclaré seen i bagage yi tamit ñu di leen ci jàppale loolu sabab na nag mag mooy réer waaye xale moom dañ koy for ñu ay for ay xale di ko yët ba tax na fi mu ne bari na ñoo xam ne wàlloog yeete jàpp nañ ne mhm. ay xale rek la ñuy for ak ak ay bagage ak màggal rek la ñuy liggéey mhm. waaye màggal gi moom kon lañ ci xalaatoon rek moo ci nekk bañ ca feeñee daal feeñ nañ ci ba faaw te fës nañ ci euh, léegi nag liggéey boobu fi mu ne moo jub si mhm. ñuy waajal màggal 2023 bi fas yéene nañ ko daan taxawee rek ñu taxawee ko ndax xam naa bu dee màggal euh, mille 2021 liñ jot for ci xale rek cent 210 xale bu fekkee màggal deux mille vingt deux bii ñu génn. Mm. for nañ trois cent soixante cinq xale. yoo xam ne ñoom ñëpp kenn ku ne fexe nañ ba mu delluwaat ci ay bokkam. est-ce que trente cinq mag yoo xam ne ay magi jëmm lañ. Mm. ànd ak seen xel ànd ak seen sago. waaye yàlla dogal na mësuñoo ñëw ci dëkk bi. Mm-hmm. yàlla dogal léeg-léeg ñenn ñii seen i téléphone ndaw ko ndaay yi àbb nañ ko te suñu ko yenee delloo. Mm-hmm. amatuñ benn pexe daal. Mm-hmm. diirub 72 heures yi ñu fi def wala ñetti fan yi ñu fiy def pour ngir ziyaare. dañ leen di daloo ngir waajal leen li nga xam ne fañ doon jëm bu ñu fa àggoon xëy na bu ñu amut léppit mhm. ñu def ci suñu kémtaleel kattan ñu màggal ak ñun ak bagage mbooleem bagage bu réer na xam naa bilan boobu bu ñu ci duggee dana gën a jël waxtu yi waaye daal li wér bu wër daal mooy mhm. euh, ñi ngi waajal màggal gi mhm. ngir bëgg nag nit ñi waajal ko euh, jataay bi danañ ci gën a sàkku nag alerte waaye soññi nag askan wi waxtaan ak ñoom muy ñi war a jóg màggal si waaye ñi nga xam ne tamit ñoo dëkke dëkk bi ñi war a jóg màggal si sëñ Kebe ñu ngi leen di dénk balaa kenn jóg mm-hmm. na am adresse bu leer ndax fii da ngay gis mag mm-hmm. mu ñëw ne daa réer foo jëm mu ne daaru mm-hmm. daaru gan du xam xuddoos du xam minna du xam marnaan léegi kon da ngaa war a xam ban daaru nga jëm xam daaru rek taxut sax nga gindi ko tumaak boo xamut ban daaru laajal adresse bu leer yor numéro téléphone yu leer ñaar wala ñett ngir boo jógee boo ñëwee boo naree am jafe-jafe man cee woote waaye boo laajte ñu xam fi nga jëm direct benen bi ci top ñu diko ko ñi ñew xalé yi ñi andal nañ leen di jangal seen numéro bu dee ko mëna wax ngir bu réré buñ ko laajee sa numéro wala kenn ci njabot gi mu mën ko wax waye benen bi ci topat tamit bagage yi nga xam dañ koy yor mhm. euh, ñu fexé ba euh, bagage yi kenn ku nekk ngay bind benn numéro téléphone taf ko ci sa sac wala sa walis ngir en cas bu réré tamit nga man ci sukkandiku mu feñ wala buñ ko jaawalé bu dé ñi nga xam ñi ngi dëkke dëkk bi nak ak li wër ñom ñi ngi leen di denk saa su ne ñu di leen ko dénk waaye di leen ko soññi di leen ko yalwaan ngir yàlla bu kenn forati ab xale téye ko ne dama amul jot xale bi mi ngi lekk mi ngi naan nga sensé yéreem bàyyi ko muy fo ci gone yi amul benn problème rek nga ne aw ma jot téye ko fa loolu ñu ngi wax sàkku mboolem ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee dëkk bi ak li ko wër hmm. loolu nañ ñu dimbali bàyyi ko ndax jafe-jafe lay doon bu méttee méttee métti ci way juru xale bi nga xam ne moo réer waaye wayjur yi nga xam ne tamit fala daloon ak fa mu mm-hmm. jóge woon ñëpp dañuy am jafe-jafe te fii màggal gi diir ñi ne ci jumaa ji da ngay gis ñoo xam ne seen doom day réer màggal jàll mm-hmm. ña desoon ci dëkk ba màggal si wuñ sax dañuy dagg paas ñëw ngir wër si xale bi fekk kenn ko fortee këram pour moom danaan danaan rek naa ci màggal moom naa fexe ba xale bi kontaan naa def li mm-hmm. fekk nag sonal nga ay nit képp ku fortib xale barab yi nga xam ne dañ fa yóbbu xale yu réer yi bari na walloog yeete mi ngi ciy taxaw taxawaay bu am solo am na lu mat juróom benn barab yoo xam ne def nañ fa ay baas ay nit ne fa heure boo fa indee xale bu soobee yàlla yàlla mën naa def mën naa gaaw a feeñ soo ko yóbboo mbaru sëñ fàllu mën naa gaaw feeñ police ak gendarmerie boo dem ci seen ci Touba boo ko fa déclaré immédiatement moom mën naa daal di feeñ ndax ñoom ñi ngi lëkkaloog ñoom ñi ngi yor suñuy numéro ñun ñoom luñ for ñun danañ ko xam ñun tamit luñ for Euh, danañ ñi ngi am ab jokkoo boo xam ne daal boo fa demee déclaré rek ngir ñu mën cee sukkandiku bu fekkee mi ngi ak ñun mu feeñ loolu yomb na même bu dee da ngay dem déclaré ko police wala gendarmerie nga doog ko téye mhm. na nga def lool loolu daal xam naa ci mhm. ab tënk ngir tontu say laaj njëkkanteeg waxtu bi xam naa ma wàcce foofu te dégluwaat beneen laaj tubaarkàlla sëñ bi Cissé mhm. ah sant bi dama xaw a jaaxal waaye daal macha allah yéen a ngi def liggéey boo xam ne mucc na ayib lool tur borom macha allah wala ak yeete xam naa xale yi nga xam ne dégguñu wolof mooy secourir et éveiller nit ki wax dëgg yàlla nga yee ko ba xelam ne jaar ba li nga xamante ni mooy amay àq ak yelleefam nga fexe ba xamal ko ko ci ak dundam ba mu xam fan lay teg tànkam wax dëgg yàlla loolu lu am solo la rawatina fi ngeen koy defee ci gox bi di Touba nga xam ne euh, xëy na njàng bi moom demewul noonu euh, xëy na sax léegi xaw naa wax dëgg yàlla waaye daal am na solo yeete gi ubbi xelu nit ki ba bépp jafe-jafe bu mu am ci ak dundam wax dëgg yàlla mën caa génne génne noo gën rafet loolu wax dëgg yàlla boo xam ne kon ci wàllu social daal lay gën a jëm dimbali société bi tubaarkàlla ba leen waa ci dund gi ñu xam niñ koy defee am na solo lool beneen baab bi tim muy wàllu muy muy muy secourir wax dëgg yàlla ah ni nga ko waxee nii daal moom surtout période màggal gii nga xam ne ñii réer waxuma la gone yi sax waaye bari waa na mag ñoo xam ne danañ màggal si ba ñëw dal bañ bëggoon a dem sax duñ fa dem ngir réer léegi nag taxaw boobu ngi taxawaay boobu ngeen taxaw ngir ñooñu nga xam ne par exemple ay perdant lañ xamuñu woon fañ jëm ngeen fexe fexe ba récupérer leen dalal leen wut ay sites yoo xam ne dañ koo implanté ngir loolu wax dëgg yàlla yéen a ngi liggéeyal Sëñ Tuubaa tubaarkàlla macha allah waaye wax nga tamit wax nga loo xam ne lu am solo la muy euh, corbia nga xam naa tur sax maa ngi soog a dégg léeg ma gis oto boo xam ne moom lañ ci bind loolu li muy signifié kon mooy Touba amuñu ko woon kon dafa mel ne kon yéen ñi yéen ñi ñi nga xam ne yéen njëkk jox ay tànk ngir looloo xam nga léeg-léeg di nit ki làqu ñu teg ko ci ab saret muuraay ga sax du demee na war a demee yaa ngay feeñ loolu tamit du sutura kon nag yéen a liggéey Sëñ Tuubaa ci fànn googu yéen daal yéen ngi topp nit ki ci ak dundam di ko topp di ko topp ba mu wujj ba mu wujj boromam topp ko jàppale ko bañ jëbal ko boromam loolu wax dëgg yàlla lu am solo liggéey Sëñ Tuubaa maanaam weesuwul loolu tubaarkàlla macha allah xam naa leneen la ci topp rek xëy na ngi xataay waxtu bi mooy seen siège ndax tim association xanaa war na am siège boo xam ne dana tax ku bëgg a dem euh, ku bëgg xam fu ngeen nekk mu mën leen a fekk foofu siège bi fan la nekkee ci Touba bisimilah. Mm, jërëjëf sees bi mi ngi nekkee fii ci Soura ñu di ko wax Poulaye wetu jàkkay sëñ bay njaay daa nekk booy xool tamit sorewul ak rajo jant bi. ci kaw tali bi rek noonu foofu la sees bi wallu ak yeete nekk. xam naa képp koo xam ne soxla nga wallu ak yeete boo fa ñëwee di nga leen fekk. waaye képp koo xam ne am nga loo soxla ci ñoom tamit mën ngaa jokkoo ak ñoom ci 77.

16 15. Euh, boo seetloo am nañ benn kii bu flash bu ñu def boo xam ne lu mat vingt cinq numéro mi ngi ci. waaye ngir euh, comme lu ñuy dégg la ñu jàpp ñett yi moo gën a neex a jàpp. te waxtu woo xame ne am na lu nit aajo woo wala mu soxla koo xam ci kuréel gi bu wootee ci ñett numéro yooyu. Mm-hmm. dina jot ko ko ci leeral la nga xam ne moom la bëgg a leerlu yëpp. Mm-hmm. beneen bi ci toppit mooy li nga doon wax léegi ci corbia yi. mi ngi noonu kon xam naa am nañ euh, ci juróom-ñett yi ci des ci gab bi am nañ benn mu des juróom-ñaar. kon nag ñi ngi tàllal loxo képp mm-hmm. koo xam ne mën nga cee dugal sa loxo fexe am ab oto boo xam ne dangay jaayante yàlla ak sëriñ bi ak sa ëllëg nga joxe oto bu man kor bi yaa mën a jël nit suturaal ko bañ yóbbu ko ci këram ku mujj ñi ngi la ciy tàllal loxo ndax soxlawaat nañ ci juróom-ñaar fi mu nekk nii ku man oto baax na ku am lu man dem ci oto it ñi ngi la ciy tàllal loxo di la ci xaar ndax fi nekkat nit ñi kenn ku ne yaa ngi fàggu kër gu rafet fàggu oto bu baax booy war waaye sóoraale woo yow fag woo oto boo xam bis boo fi bàyyi koo woon ci lañ lay teg te loolu it mat naa bàyyi xel ndax euh, jëf la joo xam ne da nga fiy nekk mu lay jëriñ waaye bis boo fi jógee yàlla na naa wëy di la jëriñ ah, waaw hmm. dëgg la hmm. dëgg la Serigne Mbaye hmm. macha allah euh, tubaarkàlla kon mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel jant bi TV ñoo ko bokk déggandoo muy association boo xam ne wax dëgg yàlla euh, rôlam dégg nañ ko mooy wàllu ak yeete moom dafa ëmb lu baree bari tubaarkàlla macha allah am na solo lool lool yéen a ngi liggéey Sëñ Tuubaa daal xam naa loolu Sëñ Tuubaa waxoon ne wax di xawaa ija latina daamoo fii xidmatin wahab lahu maaraamoo yow yàlla ñi nga xam ne dañ may liggéeyal na leen may lépp lu ñu sàkku tubaarkàlla loolu yàlla yàlla defal leen ko ndax kat wax di yàlla yéen a ngi liggéey Sëñ Tuubaa bu baax a baax mm. waaye wax nga ko léegi mu yaay affiche yoo xam ne dañu ko defoon mu jamonoy màggal gi ngir ñi nga xamante si bi ne xëy na mm-hmm. léegi-léegi ñu xaw a perdre seen ay repères mm-hmm. euh, bu ñu wootee ci numéro yi nga affiché mm-hmm. incha allah xam naa dañ ci lim quelques numéro rek mm-hmm. yoo xamante si bi ne mbokk yi bu ñu ko bàyyee xel mm-hmm. képp ko xam si bi ne xëy na yàlla def na fa nga jëmoon xamoo ko numéro boo ci récupéré rek boo ci wootee danga jot waa wàllu ak yeete dañ la jàppale incha allahu ba sa maggal dana mel ni war a mel te incha allah say mbokk bu ko yàlla dogal dañ la gis incha allah nga jox ci yenn numéro bu soobee yàlla. waaye kon ñetti numéro woon ci la bokk. waaye mën na cee yokkaat tamit 77 550.

yooyu ñetti na yu ñu indiwaat ci numéro yi nga xam ne mooy vingt 25 numéro yi nga xam ne 24 heures sur 24 amul waxtu amul heure heure boo ci wootee dinga jot koo xam ne dina la mën a leeral bu dee dañ lay tegtal wala ñu tàgganti la laadanti la ba nga mën a dem fa nga jëm danañ ko def bu dee loo réer le wala loo forit danañ mën a fexe jokkoo ak yow ba loola ñu fexe ba boroom jot ci ndax fii ñuy waxee ak yow tey nii fii ñu toggee nii tey euh, tey jii nga xam ne mooy le 2 euh, le 2 septembre 2023 mm-hmm. euh, waaw bi 20 heures di jot mm-hmm. léegi avant ñuy dugg ci studio bi am nañ fukki xale ak benn yu ñu déclaré gun fi mu ne yu réeragul te màggal gi des na ñaari te màggal gi des na ñaari fan suba ak ginnaaw suba suba ak ginnaaw suba fukki xale ak benn déclaré nañ ñu ko fi mu ne yu réeragul bu dee ci wàllu bagage Euh, am na ñaar fukki nit ak benn ak juróom-benn yoo xam ne ñoom it. seen i bagage am na jafe-jafe réer na jaawaloo na fàtte nañ ko. te màggal gi des na ñaari fan. xam nga loolu fi mu ne jafe-jafe la tey corniche bi gis nga ni ko Cheikh mu Mountakha defe ni mu leere ak mm. njariñ lim am. ak ni dëkk bi xatee fi mu ne ni mu ko yombalee. sareet yaa ngi jaar côté bee nit ñaa ngi jaar côté bee amul benn jafe-jafe. waaye xam nañ ne ñi nga xam ne miin nañ dëkk bi sax léeg-léeg ñu romb fañ waroon a wàcc mm-hmm. ndax garab yi ñu doon def rappel ak mbaar yeeg yooyu kon réer gi ñu ngi gën a soññi ñëpp te xam ne ñu di ko waajal ñi ñëwagut mm-hmm. te xam ne mën naa gën a metti te waaye ñu bàyyi ci xel bu baax a baax rek tey am adresse yu leer sëriñ euh, Kébé waaw koy jërëjëf sëriñ mm-hmm. euh, mbay Cissé wax dëgg yàlla kon mbokk yi loolu mooy association bi incha allahu ñi ngi liggéey sëriñ Tuubaa ci dëkk bi te dëkk la boo xam ne wax dëgg yàlla ah tubaarkàlla ku ci nekk di liggéey sëriñ Tuubaa yaa ngi liggéey yàlla ndax Serigne Touba dëkk bi yàlla rek tax mu san mu sanc ko jaamu yàlla xeetali mbindeef yi kon képp ku ci nekk nekk fi ne ni Serigne bi gërëmee ba noppi di ko ci jàppale na mu ko bëggee woon yaa ngi liggéeyal yàlla te nag wax jaam bi nag li ko li ko suñu borom indee mooy jaamu yàlla moo ko mën a may teraanga yi fii ak fële kon daal association boo xam ne am na solo lool xam naa kon bépp mbokk boo xam ne maanaam ku ci bëggoon a jàpp ku mel ne man mi nga xam ne bëggoon naa bokk ci association bi ci yan condition lay mën a jaar ngir bokk ci sëñ Mbaye Cissé waaw bu fekkee jot gi may na ko bu ñëwee ci sées bi ci poulailler mm-hmm. poulailler bi nekk ci wetu jàkkay sëñ Mbay Njaay bu ñëwee foofu dinañ mën a bokk ni muy bokkee it carte membre lay ñoo xam ne dañ koy wecciku ah. euh, bu ko defee am nañ tamit comme xarala yu bees yi mu doxee ay groupe whatsapp yoo xam ne fa la ñuy waxtaane fa la ñuy tënkee léeg ñu def ay réunion physique bu ko defee danañ da nga mën a tàbbi ca liggéey bi li ñuy def it ab jaayante la tobbiwuñ ci aw sas hmm. maam ku ne daal yaay xool ni nga mën a jàppe ci liggéey bi rek nga jàppe ci ñii danañ am lu ñu ci barkeloo ci wàllu koom ñii di ci joxe seen doole ñii di joxe seen xel ginnaaw daal dañuy dimbalewaate hmm. kenn ku nekk ak sa kàttan tool rek boo ñëwee da ci mën a jàpp bu fekkente ne it koo xam ne daa bëgg a jokkoo téléphone it. Mhm. comme ni ma ko waxee rek 77. waaw 268. 74 72. dëgg la wala 76. 486. 16 15 bu ci wooteet euh, danañ ko wax na muy def ba mhm. ñëw bokk ci wala bu ci bëggee jàpp ak nu mu ci a jàppee it danañ ko orienté ba mu am fu mu. tubaarkàlla macha allah kon mbokk yi ñoo ko bokk déggandoo. Mhm. képp ko xam ne bëgg ngaa bokk ci association bi rek liggéeyal Serigne Touba. jaamoo ko sa borom lu am solo la mat naa bàyyi xel lool. Mm-hmm. waaye sa biir kàddu yi daa mel dégg naa nga wax ba wax wàllu international ñi ñu ci mm-hmm. waaw mel ne na ñoo xam ne ñu ci bitim réew ba noppi bokk ci association bi. waaw am na am ñu nekk bitim réew ba noppi bokk ci association bi. Mm-hmm. ndax naka jekk amoon na. mais bi ñu xalaatee corbillard yi. waaw 2018. doon ko yëkkati mu xaw a diis. maa ngi lay wax ne vingt lañ ko yëkkatiwaat ci njiital Cheikh Bassirou Diop. waaw dam nekk Italie nekk dëkk bu ñuy wax Cesena. moom moo ñu ci wuy si dafa am kuréel gu mag bu mu yor foofa ñu di ko wax mu murit ndigal. di la wax ne it kuréel mooy kuréel gi njëkk mhm. yëkkati ab som jàppale ko wàllu ci wàllu mhm. ndimbal. léegi nag kuréel googu. Mhm. Euh, bi yëkkatewaatee liggéey bi ñoo ko porté ànd kook ñun. ñu kerewaat geneen kuréel yaatal ko nag mu nekk international. maanaam ci Europe Afrique asi ak fépp rek ak Amérique ak fépp ñu daje foofu ñun ñëpp. ba tey ak sax ci delloo jéem sax ci delloo njukkal Serigne Touba. ñëpp ñu daje fa. foofu lañ doon coordonné corbia bi. la fa daje ci mbooloo ci kuréel googa defe naa jege woon na deux ndax euh, sëñ sëñ muy Cheikh Bassirou Diop. Mm-hmm. toujours lépp lu muy def ñaari dafa ëpp ci xitma ak jàppale te noonu lay jàppalee tamit yeneen kuréel yi nga xam ne mm-hmm. ñi ngi fi nekk te nekk ci ndigalal sëriñ bi te nga xam ne la ñuy def dañ koy jaayante rek moom ci dëkk yu wuute yëpp ñëpp daal a ngi ci biir liggéey bi donte kon sori nañ waaye dinañ ci jàpp ci xalaat di ci jàppit ci wàllu koom ak ku fi suñu borom dogal ñëw nga tombe feek màggal nit ñu ci bari dañuy wàcc ci terrain bi di ñëw di jàpp ci liggéey bi di ko ànd ak ñun daal jërëjëf sëriñ mbay Mbaye Cissé kon mbokk yi ñoo ko déggandoo mm-hmm. kon suñ ko doon résumé dañ naan daal association la xam ne nationale la mais aussi internationale la te yitte ji rek mooy jàppale askan wi mm-hmm. li ñu soxla seen wàllu dund mm-hmm. ba waxtu wi ñu wujji seen borom lépp rek danañ ci jàpp ñoom nañ ci war a jàppe mm-hmm. am na solo lool la waaye nag rawatina jamono yi màggal gii nga xam ne dañuy taxaw lool lool ci ñi nga xam ne xëy na dañu xaw a réer wala fañ jëm duñ ko xamati wala yu demee noonu daal xam ne taxaw nañ ci taxawin woo xam ne ñoom danañ fexe fexe fexe ba ñooñu ñëpp dañu leen jàppale bañ jind ko mm-hmm. muy lu am solo mm-hmm. waaw xam naa xam naa foofu it benn jafe am na ci li may mm-hmm. dénkaane waa dëkk bi waaw eh, ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki safoor yi ak suñu mbokki yor saret yi surtout safoor yi wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne ñu ngi gën sonal askan wi lool lool lool lool lool lool lool jëlale naa yokk gi yokk gu metti gu jéggi dayo gi wante maanaam fi mu ne nii bu fekkee dangaa jóge jógee euh, sow bi. parce que fi mu ne nii ñu ngi lay wàccee héliport. léegi imagine tey nga wàcc héliport war a jóg fii ñëw tey jii rek maa ngi doon jokkoo koo xam ne bi ma koy wax ak moom ngir fayal ko oto pour mu ñëw ci côté poulailler bi fay nañ taxi 10 000 francs mu bañ. ñaari junni mu war koo jëlee héliport. indi ko fii fay nañ ko ñaari junni mu bañ léegi nag dangay xool koo xam ne euh, ak li mu daj ak coono bi fi mu ne nii boo fa demee nit ñaa nga fa fees dell ak dekk bu xat bi ak taw bi ñu ngi sakku ñu xolaat dugalaat ci yermande xol seen dig ak serigne bi ndax jafé jafé yi daal met na borom sareet yeet leg leg ñoom wax dëgg yalla fo jëm ñu ne la yegal ci la gëna sank tax fekk ñoom it li ñu lay jox duñ xam fi nga jëm léegi loolu ku xam fo jëm nga nga baña yep nit ki gën ko sank gën ko réeral daal sëñ bi jërëjëf sëñ Mbaye Cissé mbokk yi won dégg nañ ko bu baax tubaarkàlla wallu ak yete mi ngi nonu lepp lo xamne askan wi dañ koy soxlawoo ci dund gi tubaarkàlla ak jafe-jafe yi nga xam ne ñoom danañ ci mën a taxaw ba loolu saafara dégg ngeen ko wax dëgg yàlla am na solo waaye sëñ Moustapha daa mel ne waxtu wi jot na su ko defee dañuy euh, tàgg foofu rek mm-hmm. tëj incha allah ah, kon dégg ngeen ko muy wàllu ak yeete association locale boo xam ne dafa taxaw ngir jàppale Sëñ Tuubaa ci dëkk bi mm-hmm. ci li waa dëkk bi soxla woo mm-hmm. rawatina jamonoy màggal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xool mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm